soxna si na ngeen def. corona bi de moo tax du ma mën a jot la ko. mais vraiment ma kontaan naa ci yéen ah. sët boobu jonko ma nii la war a mel. ni ngeen di def nii nag vraiment gisuma ci benn problème. yéen daal yàlla seen jàmm yàlla. mais ci lu fu ngeen jógee nii. dañ doon ah, ngeen di doxantoo. soxna si wuy ma man pour ma sewal. bu dee li fi xew keroog moo tax nga ñëw di ma teeroo nii loolu amul problème loolu c'est entre yow ak Pia. du dëgg mais xam nit ki xam jikkoom da caa gën. exactement nag waxuma leen ni ma dem Pia keroog 5 heures laa dem fekk ko fa ñoom ñaar ñuy attaaya ma dugg Pia man ne ku ma xamul ci ànd bi. am njariñ papa mi sax au moins dina la xamalee góor ñu baax. a bàyyi boobu ba ngi wax bàyyil kooku jëriñu ndax ngeen sañ ah, koo wax ndax koo wax. Pia koy def loolu mais du man. lenn daal laa leen di wax bu la neexee nga ne 6 ay 9 bu la neexee nga ne six ay neuf parce que nit ki moom boo xamul dikkoom lu ne mën nga koo seedeel amul benn problème yëfu jigéen la dama lay bàyyi nga wax lu la neex mais li ma leen di xamal ba xamal leen ko mooy bu leen fàttali tamit ci tabaski lañ nekk du dëgg jigéen ak i mbiram ak yu sew sewaanam li muy soxla ci tabaski bëri na soxla ngeen greffage soxla ngeen ay dàll soxla ngeen ay jasneer soxla ngeen lu ngeen def seen poos loolu du dëgg man nag ci ma leen dugal man xam naa ay góor ñu baax laa yor bu ngeen ko nangoo nag ma jàppale leen bu ngeen ko nangul nag lu golo xam bootee doomam kii nag amul problème xëy nag li mu ñëw keroog fekk ma mag Pia ñu toog mu yaakaar ni mu wax ma ak moom ñoo bokk lobby bi déedéet. ku ci nekk ak li Pia loolu la ma wax. topp leen ko nag ngeen dem. man su nekkul man gëm naa li Paa mi wax ndax xaw ma ko ci ay caaxaan. loolu Paa laa gëm ak fi tabaski bi toll nii. ak fi réew mi toll sax fi corona bi toll. leen daal laa leen di wax bu doon yow nooy def. bu doon yow la nooy yow nag bon bu la neexee mën ngaa jël sa yoon yooni bopp yéen après dañuy déggoo ma teg lañ ci waaw amul problème leen désaxé yéen am leen jàmm rek waaw waaw ok waaw noonu la demee waaw waaw mu ngi noonu gisuma ci problème de yàlla jàmm yàgg waaye ñëw Mbubige Mariam Njaay ma sooda bigee alima nguy maay taale bige Njaay war naa ni ma leere jaay kenn bon bige Njaay ma yow ma yow ma yow mbay mbay waay waaw waay waaw bu mu la fekk waay waaw bu mu la fekk doy waar ah jamono jooju maa ngi dawal mbege <laughs> ma buuge Mariam Njaay bi muy way ndeysaan boobu way wa dis maanaam ci jamono jooju nag ñu ngi foog xoom langa buri langa buri ngay rëpp ci suuf si ba say tànk weex boo déggee salim toom mi na lax daa ay moom boo ñëwee sa yii niin yii niin boobu yéen danga karaaj de def ko sa poos boo léegi lañ valorisé wul yéen rek mais yéen yaa ngi wax jamono ju doy waar boobu garabu ndee day toll ni garabu nii waaye léegi xale yi footul léegi de xale yaa wutum dërëm ak doxam gu metti ci la ne ah, léegi moo tax laa ilaaha illallah. corona daal yàlla de ma. waa jeg saala ba coro ma jigéen di ko faale way de. nee naa la bu yenn yi amoon kenn du jël yenn di ko teg ci kaw yenn yi ba yenn yi am te mooy ba xam nga ni bëgg naa la. kenn du yow ci mim réew nii laay def. Sénégal lépp teranga la teranga yi àdduna bët. ah. <laughs> nga dëgg de amoon naa ci bés de. àdduna ah, amul solo man damaa xam sa po de. maa am tuuti rek. xam naa po wax na dëgg xam na li ñuy wax. <laughs> Ah, waxtaanu famille la ci kër gi la rek mani. waaw gi tojee ci biir ñu ci bi bëgg naa ma la reewoo. ma sa nam day xaar soo woowee la te ngi soo pire bi démb moom la doon si rek di naan. dégg loolu. démb daan naan ci kër gi mel ne ni kete bi. waaw TNT bi raw dara la gënu koo raw. mel ne ni suuf kànja bu dox desa. <laughs> <laughs> xale baa ngi nii ku riis ku bëgg boppam. lool leen ma wax de. ku am jom. loolu leen ku xam boppam teg. loolu yàlla dogal. loolu leen ma ah, wax naan ku nangu lu jeex. te doo ŋax ŋax. <laughs> xam nga yow suma nit nga. loolu bokk ci man. wallaay baax kër gi. surtout yaa ngi ah, nga yaa ngi ci man. kii nag sama nit a. xool la am sama yaram bi daj ko. <laughs> waaw dama yëg la. loo indi ak noo ñëwee. ma ñëweti. waaw ma ñëweti. ñëweti ma franchir porte bi du ma ñëw ay loxoy neen. parce que. laay laay waaw waaw. naam sax ni nga sàcc nii dama ko bëgg loolu. daa tàng. say xeetu njaxas neex. waaw nii la. nga laal may lus waaw ñu ànd ma présenté koo xam ne bu joxe du compté day ñokk. déet. rek xaar ma dem ba ñëw nan la. locataire yi bu ñu ñëwee nan la jox xaalis bi nga téye maa ngi kenn du yow bëgg naa la de bàcc bi jub bàcc bi naa la Sénégal lépp di teraanga ay man kat li ma yàlla di may gémmiñ du gaaw ko di bii de padi bi jebi padi bi jebi padi bi jebi padi bi jebi loolu la may wax rek ñu booy bi yóbbu ko kon nag li muy làkk laa waroon a mën ko di bii bee paama ñaambaay ko di bi génnee paama ñaambaay ma ko ne may is man nag gàtt géwal mënuma ko may li mu wax rek booy bu ko ci géej gu baax te bu ñëwee bii bees tàq lay yor man ma topp xar yi man damaa mel ni man est-ce que ma si ay ay affaire xar